taalibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Matiley xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak sëriñ Modou Mbub kaddu gaa ngi nii nga bàyyi koo Njaasaan maam Bu Kunta ku ne xam na digganteem ak sëriñ Touba kon Modou bismillah mbooloo mi salaamualeykum Cheikh Modou Bachir Mbacke ñu ngi lay nuyu ñoo ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom bàyyi ko fi te yàggal ko ñaanal itam bu cheikh sidil maxtaar mi nga xam ni tay mooy xalif général xadriya mi wuutu tey baayam waaye wuutu cheikh bu mohammed kunta cheikh basir def nga lu rëy démb la doon fàttaliku alxaaji mam bu mi nga xam ni mooy sët bi njëkk a wuutu maamam seexal bekaay moo njëkk a mbaayam baayam waaye alaaji maam bu nag mooy sët bi njëkk a wuutu maamam démb laa taxaw ca digg cérémonie ba ci ndigalu soxna su mi nga xam ni mooy doomi alaaji maam bu mi ma njëkk a wan rasulillahi ni yaa Cheikh Modou Bachir dana fàttali alaaji maam bu ci journée culturelle u Cheikh Modou Lamine bi nga xam ni tey jii kuy woote journée culturelle fii ci réew mi sa xel dina dem ci Cheikh Modou Bachir garab du ni maaka baax soow du ni maaka weex suukar du ni maaka neex ndax yaa doon Cheikh Modou Lamine ah kon Cheikh Zeyda Abidin ñëw na mi caatu alaaji Mambu waaye ànd ak Baye Sidi mi nga xam ni baayam mooy xalifab alaaji Mambu waaye ma jël kaddu gi nag jox ko kan Cheikh Sidi Lamine ah le 25 novembre ñu ñëpp ak Ndiassane gépp la dañu waaj ñëw fan fii ci Cissesse fekk si kan Cheikh Ahmadoul Bachir kon Cheikh Sidi Lamine on vous la parole. هل غادر الشعراء من متردم am hal arafta daara baada tawahumi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu Cheikh Bachir la daroon antara moo ñu dal ci jotaay bi dañ dan joxante mikoro ba yegsi ci moom mu ne ndax man mën naa fee waxati lu ëpp li ma jiitu ñi ma jiitu li ñu wax wala man dama mel ni kuy def deflu ngir fàtte fa ma jëm waaye ñoo ngi leen di nuyu ci tur Njaasaan yëpp fa yaa ahla kunta fa man kaana madiha wa ankarakum xumqun fa aqluhu zailun ndax lan fa antum la dal ashraafi taaju ruusahumu fa man raama nayla fadlin fiikumul fadailu ñooñu ñooy waa Njaasaan boo xamee cër bi ñu am ci ci réew mi ak ci bitim réew nga xam ni samaam maam Serigne Touba bëri na waana ci bindam fu muy yaxanale di tudd ahlul kunti di ko jaaree ci góor yàlla gu màgg googu ñi wooye cheikh na si di Muxtaarul kunti boo defee lu mel nii dañ naan defati nga ndax li tax defit la li tax muy def it mooy ku mel ni Serigne Touba buy tudd kunta yow nga ñëw di jaar ci jaarin boobu danga ngaa tëb tëbin boobu si anta doy na ci tegtal rek asaaruhu fi juzwatil anwaari fi zabbi an manasibil axiyaari di cheikhina al kuntizil anwaari alayhi ridwanul ilahi baari ngeen di rendre ku jar rendre hommage du sunu maam ja ki nga xamante ni moom mooy alaaji mambu toog fi toogaayam bu rafet ba ci diggante 2006 ak 2018 benn waykat nee na ko fa anta tubaaril baxra wal baxru zaaxirun saxaan wara fa fiika xamuulu dem ba ko kafaaka kafaakal xaaji mambu saadatan xalifata jimin min abaayikal jalili mu wax ni fa anta yow xasru ko def yow rekk dong sël alaaji mambu tubaaril baxra dinga mel ni géej di di ngombalante géej wal baxru jamono jooju géej gi zaaxirun mi ngi fuur ngir bëri ay mayif yoo xam te ni dafa nekk ci biir géej la tax ngay melante géej saxaa an ci tab azal wara mbindaa fan yëpp seen loraange fa fii ka xamul yaaka daan ngàbb yow mi nga xam ne yaay alaaji mamb su doon teraanga dana doy Cheikh Bachir kii nga woo nekk na xalifa ñetti yoon xalifa waajuram nekk na ko waaye nekk na xalifa baayam nekk na xalifa maamam nekk na xalifa maamaatam sëriñ Ahmed mi nga xam ni mooy taawam di xalifaam nee na mi ngi ci woo waa kër maam Cheikh Albekaay mi nga xam ni ñooy taawu Cheikh bu Mouhamed Kunta di ci wo waa kër maam Cheikh Sidi Lamine di ci woo waa kër maam Abdourahmane Kunta di ci wo waa kër maam Cheikh Sidi Balle di ci wo waa kër maam Cheikh Sidi Ali di ci woo waa kër Alhaaji Mamadou te Cheikh Albekaay ne ci bopp ba waaye di ci woo waa kër Cheikh Sidi Mokhtar te xalifatul am li taifatil qaadire nekk ci bopp bi waaye di ci woo ki nga xam ne ñooy waa kër maam Cheikh Sidi Yaxya di ci woo waa kër maam Cheikh bu Mouhamed Kunta bay bu mi nga xam ne moom mooy caatu Cheikh Abu Mouhamed Kunta kon bis baa ngoog yàlla ci yàlla yóbbu jàmm ak salaam wa fiikum baarakallah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Kunta Sibi. bés bango seizième édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissé ku ci bëgg ay leeral jokkool ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awoba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu